asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngi siyaare bu baax a baax nga xanaa dañuy jéem a jëfe ndigal rek waaye xaw noo ñemee yëkkati suñ kàddu bi dara lu des lu ñu war a leeral amatu ci xanaa ak soññee rek xam ne ndigal li ci jullit ñépp la jëm rawatina fu taalibe Sëriñ Tuubaa nag rawatina ñu dëkk ci biir dëkk bi moo xam ne ndigal jib na ndigal nag waxtu wu jibee ndimbal la lu rëy lu jëm si ci bindeef yi ku ko xamee noonu te jëfe ko ndimbal loolee sa ndimbal lay doon naan ñu fas yéene koo jàppee noonu te xam ne lii itam day njariñ lu ñëpp daal di xam ndax ñëpp xamandoo nañ ne réew mi laaj na ko fim mu ne ñëpp xamandoo nañ it ne sëriñ bi yéeneem ak jenn ñaanam rek doy na sikk waaye yéeneem jure yi moo tax mu yaatale ko bëgg jullit ñëpp ànd ko ni ko sëriñ Maamor waxee sëriñ Maamor li mu wax dara desu ci xanaa kay kon nu soññente ji defin wa rek defin bi mooy def ci suñu yitte bu baax a baax ak suñu pasteef te ni waxit leer na barab bu nekk buñ daan daje di fa jàng alxuraan nañ fa daje nañ ko fa daan daje muy jàkke yi ak kër yi sëriñ Tuubaa yi ak foofu dajewukaay nekk rek foo xam ne ay jullit mën nañ faa day jàng alxuraan ci ndigal li itam waxuma dëkk bi waxuma réew mi waaye àdduna sépp la daj foofu ay jullit nekk te dégg ko rek nañ fasoo fañ nekk ñu defee fa ndigal li ndax fu doomu aadama yi noyyi rek bëgg na fa jàmm te njàng mii ko ne xam na ne jàmm rek lay jur ci àdduna sépp réew mi ne da ko soxla lool fii nu ci toll waaye fépp soxla jàmm kon fu waaye bëgg jàmm na fa fas defee ndigal li xanaa liñ ci waroon a gën a doole soññee rek mooy wàllu xéewal yi ni ko sëriñ Maamoor waxee fu taalibe bi nekk lépp loo mën ci xéewal nanga ko def fa la gën a jege ci fu ñu fay jànge ñu yóbbu ko fa ñi nga xam ne dañoo wër dañoo ne ci biir dëkk wër jumaa ji wala andi ko ci jumaa ji jàpp yomb leen itam nañ ko waaja noonu defe ko noona waaye kenn ku ne jàpp ne lu ñu fi def ci xéewal rek doyut ndax mbooloo mi dana bari te mbooloo mi jàng alxuraan yi ngir ñaan jàmm ci àdduna luñ leen teral rek nga ji daa war a yaatu lool te matale kon kenn ku nekk da nga ciy am sa yëgeegu bopp sa soññe bopp gëm ne lañ ci soxla lépp kenn ku ko mënoon yow rek nga def waaye bu kenn ku ne defee la nga man lépp xéewal yi bari rek lay def nga ji doy rek lay def man na ko ñëpp waaj waajal danañ am barab bu nekk itam ña nga xam ne lu ñu fa daan taxawu ci yu demee noonu ñoo ko daan taxaw ba tey nañ ko taxaw ndax bu ñuy jàng war naa am ñu taxaw ñii jàng xéewal yu fa ñëw ñu saytu ko ba jox ko nit ñi nañ leen ko war a joxe loolu itam te jàkk ju nekk am na mukallaf yu fay jullee waxtu juróom yoo xam ne mukallaf yooyu mën na ca am mbooloo moo xam ne danañ mën a taxaw jàkk ja ba xéewal gu fa ñëw ñu taxaw ko nañ ko war a taxawoo noonu itam jumaa ji sëriñ bi wax na waa muqaddamatul xidma sëñ Maamor tudd na leen ñu ngi nii toog xéewal yi fi ñëw dana nu ànd incha allahu ba toppatoo ko saytu ko ba mu jaar ci fa mu war a jaar lépp mu delluwaat ci ni ko sëriñ Maamor waxee muy jëwriñ ji Cheikh Amadou Mountakha def ko jëwriñi liggéey bi moom it maanaam ak jëwriñam yi mu bokkal liggéey bi muy waa rabita bi te sëriñ siru Mbacké ñoom nekk nii boobaat ñoom ñoo ngi ci seen ginnaaw lépp ñu xalaat ne mooy jagal liggéey ba rek danañ ñu ko sant te danañu ko def maa maa mu xam ne mot xel maag bokki taali bi yëpp sëriñ Mamor wax na léegi ci ci waxam jépp nga xam ne alxuraan ak xasida la ñuy boole xasaayid yi nag ku nekk da cee xam taxawaayam suñu xam sëtu moom Cheikh Souhaïbou ak taxawaayam bu réy bu mu ci taxawe moo tax sëriñ moor wax na ne ndigal loole àggale na ko ci moom sëriñ am sëtu ngir lañ njàngum xasida ma lépp mu taxawoo ko moom itam bu boobaa na nas nasin wa sëriñ am surtout bu ca xalaatee waxtaan teg sëñ Maamoor ñu bokk ca xalaat danañ ko teg ci yoon mu war a tëddee su fekkee jàkka ju ne ña fay jàng alxuraan am na ñu fa nekk ñoo xam ne mën nañoo féete ci xasida yi yaakaar naa bu boobaa tam noonu rek lañ koy mën a defee moom sëriñ am fu muy mën a dajeeg mbooloom fu koy defee it danañ ko leeral ba ba jottali ko bañ mën koo defee noonu noonu rek lañ ci doon jot bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi kon xanaa kàddu yi ñu rek mooy kàddu yi eh, ñaan sunu bokki taalibe yi nga xam ne ñooy ñëw ci barab yi nga xam ne fi la ñuy jànge ñu ànd ak teggin yi nga xam ne barab bi ñu koy defee laaj na ko ndax li ñuy def ci boppam dafa laaj ay teggin barab bi ñu koy defee laaj ay teggin jublu gi ci sëriñ bi jublu itam laaj ay teggini boppam ñu sàmmonte nag ñetti teggin yépp te mooy teggini jàng alxuraan ci boppam ak teggini barab bi ñu koy jànge ak teggini ñaan gi nga xam ne moom la ñu yéene ci jàngu alxuraan bi nga xam ne moom la ñuy def te lu ci nekk dafa ànd ak teggini boppam ñuy ñaan itam ñi nga xam ne dañuy ñëw tey indi ay daara ñu yàpp gone yi nga xam ne ñoom la ñuy indi ñu xam ne foo taxu leen a jóg xumbeen taxu leen a jóg waaye dañu jóg ngir def jëf jëfe ndigal jaamu ci yàlla ñaan ci sunu borom itam ñu làmboog teggin yi nga xam ne moom la war a àndal ci yar bi ak teggin yi bañ a dàqe bañ a fo bañ a def lenn lu koy nuru ñi nga xam ne itam aw jigéen lañu ñoom itam ñu moytu bu baax jaxasoo bi ak góor ñi barab bi am na barab bu ñu sàkk ngir jigéen ñi di fa féete am barab yu ñu sàkk ngir góor ñi di fa féete ñuy ñaan nag bokki taalibe bi yëpp ñu war warmal loolu góor ñi bañ a dem ci barab bi jigéen ñi nekk jigéen ñi itam moytandiku bu baax barab yi nga xam ne ci la góor ñi nekk ndax sëriñ Tuubaa kat ku bañoon ab jaxasoo la ci diggante góor ak jigéen te bañ googee na mu ne mi ko bañoon na la ko Cheikh Mahamadul Muntaxa mi bañee kon ñi ngi ñaan jigéen ñi ñu ñi nga xam ne itam dañuy ñëw ñu bàyyi xel barab bi ñu jëm ci col gi mu jot sëkk te muuraay yam war a àndal te bu ñu ñëwee itam ñu dem fa ñu war a tooge te yam fa góor ñi itam ñu def noonu ñëw fa ñu war a nekk ñoom itam te yam fa jaxasoo bañ a am su ko defee ñi nga xam ne dañuy indi aw ñam itam barab bi itam dafa laaj ak cet te it euh, euh, bu ñu sañoon defar gañ fay defar du jur genn yàq kon ku indi aw ñam am na ñu yore ñam yi am na ay waañ yoo xam ne bunt boo duggee danañ la mën a euh, jubbanti nga jëm ca wet nga jëm ca waañ ya soo demee nga teg ko ci loxo yi ña fa nekk danañu ko séddale ba mu àgg te dara du ci yàq yàqu waaye nag sak taamuwuñu kuy ñëw di séddaleel sa bopp muy taqal barab bi yan yi di niin yan yi di tax lu mel ne ay café ak yeneen bu fa jógee mu indi liggéey bu bari ba noppi itam mën indi ay ngaa ay gaañu gaañu ndax niinaay bi mën naa indi ay tarxiis te tarxiis bi mën naa indi ay jël te yooyu yëpp nag sëriñ bi tàmmoo ko ci kon nañ sàmmonteeg teggin yi nañ sàmmonteeg cat gi nañu sàmmonteeg col gi nañu sàmmonte sàmmonteeg wor may barab bi sàmmonte itam ak moytu jaxasoo bi bu baax a baax loolu daal mooy ndénkaan yi nga xam ne moom lañ doon ñaan bokki taalibe yi ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa